nekk yoo xamante ni cité dañ ko ci euh, ci falsification PV et tout ça lan moo waral tey mu xaar ba léegi bëgg a génn man euh, ci question boobu li ma ci wax boog li ma sama xalaat moo di euh, que xëy na tey gis na ni procureur bi nga xamante ni le juge d'instruction mené na à son niveau enquête entendre yenn personnes yi et tout ça xam naa ni comme dossier bi nag transmettre dañ ko léegi à la chambre criminelle dafa moom il juge il juge opportun euh, moment bi pour mën a génne pour pour pour seetal boppam je pense que ni bu teniree point de presse bi xam naa ni ci loolu forcément dina ci wax addu ci li nga xamante ne accusation yu ñu porté la mhm. sur sa personne mu expliquer également euh, falsification yi nga xamante ni Ousmane Sonko euh, kii na ko jiiñ na ko ak tout ça donc ban rôle la ci joué ci li nga xamante ni moo di euh, PV boobu nga xamante ni nag euh, moom la ñuy wax euh, PV à charge la woon la à charge la contre Ousmane Sonko et tout ça ndax Bassirou Gueye boobu ba tey buñ ko ci cité amul benn yoon bu mu ci mës a addu mm-hmm. ce sera l'occasion tey jii je pense ak presse bi nekk en face de de de lui. Mm-hmm. poser ko ci interpeller ko ci plusieurs questions yoo xamante ni depuis lors il a préféré garder le silence. lan moo mm-hmm. tax nag tey. mu jugé opportun génn ba nga xamante ni euh, entendre na juge d'instruction jël na ñi muy jël ba nga xamante moom ba tey kenn déggu ko ci mhm. donc xëy na dina mën a loolu lan moo ko waral peut aussi il a choisi rek pour mën a wax ci li nga xamante ni incriminé nañ ko ci mhm. maam Birame li ñu jot a for ci ay kàddoom moom procureur dafa nekk di weddi tuuma yi nga xamante ni Ousmane Sonko tegal na ko mi ngi wax ci rapport gendarmerie yooyu yëpp accusations yi nekk na ay accusations yoo xamante ni dara du ci dëgg mu yóbbu ko ci yoon rek au lieu que muy woote presse. Euh, même bu dul loolu sax Ousmane sonk si boppam moom porté na ko plainte normalement su amul obstruction. Euh, euh, bi Madiambal Diagne porté plainte Souleymane Teliko le ministre de la justice a permis ñu mën ko poursuivre bi également Ousmane Sonko na ko plainte bu je pense que su amee loo xamante ni waroon na ko wax Euh, euh, euh, non seulement mën na porter plainte comme nu nga ko waxee mais mun na également dem wuyu ji ko foofu mais xam nga sortem bi pour man soxlawul sax may xam contenu bi lan lan lay wax déjà timing bi contexte bi waaw timing moo doon laajte léegi <laughs> très bien ñoom seen affaire moo cool parce que réquisitoire procureur bi ñu ne moom moo tax ñu envoyé Ousmane Sonko chambre criminelle ñu bëri liir nañ ko ñu naan ay prélèvement le 2 février plainte le 3 février. Hmm? prélèvement yi ñu def 2 février avant ñuy porter plainte loolu juridiquement ça ne tient pas. ñëpp xam nañ ne euh, euh, diagnostic bi nga xamante ne nii gendarmerie wala police ñoom ñoo ko demandé loolu aux yeux de la loi loolooy compté. léegi nag bu nekkee ne dañoo def njombe bu rëy noonu bu toll noonu te au moment des faits. c'était lui le procureur de la République dina ñëw def porte presse comme nu nga ko wax te li mu ci gën a jublu non seulement euh, jéem a teggi euh, euh, kii boobu nga xamante ni ndëgg sërëx boobu nga xamante ni ñoom dugal nañ ci seen bopp parce que comment est-ce que yow un procureur boo xamante ni yow tu te respectes nga ne da ngay transmettre un dossier à la justice nga jël réquisitoire bi nga xamante ni gendarmerie def na ko li ci jóge nga tegee ko ne jël boo xamante ni ça a été fait la veille. nga jël boo xam ne ça a été fait la veille te boobu moo nekkoon procureur bi. Mhm. loolu rek doy na de presse. loolu rek doy na conférence de presse. fi mu ne nii kañ am na lu mu wax mais malheureusement li ñuy bëgg a def mooy tourner euh, euh, euh, jéem a tourner xelu opinion bi di expliquer naan ceci a été normal cela a été normal mais dans tous les cas erreur boobu ñu def moom gisuma lan la ñu mën a lay. ba génne ko. Mhm. ci yow nañuy des sax waxtaanee ci loolu réquisitoire définitif bi nga xamante ni moom procureur moom la def ba ñu yóbbu dossier euh, Ousmane Sonko euh, fële ca ca tribunal pour mu mën a am audience euh, yaa ngi koy wax léegi réquisitoire mooy tax ba ñu mën la jébbal médecin médecin bi mën la saytu. Mhm. donc réquisitoire balaa muy am foog nga déposer plainte. Mhm. date yooyu noonu bu ñu waroowee mais loolu rek est-ce que dayul woon pour que ñu neenal mbir yi bañ a naan waxu waxu procès wala quoi que ce soit. waaw moom kay loolu vice de a mag yow bu nekkee aji aji saar ñëpp xam nañu ne Sidi Ahmed mbay moo ne da ko doon xaar buntu Sweet Beauté pour buñ ko violé ba pare mu yóbbu ko. Mhm. ba mu ko violé ba ba ba ba mu génnee ne ko daf ko violé ci la ko yóbbu ñu def seeni euh, seeni affaire daal di ñëw le lendemain bi aji saar demee porté ji plainte capitaine Touré wax na ne daf ko booleeg ak ay gendarme ñu dem hôpital euh, Grand Yoff pour ñu def exam ñu examiner aji saar. Mhm. yow bu nekkee ne PV bi dañ koy bind. Mhm. réquisi réquisitoire bi nga xam réquisition bi nga xamante ne ni gendarme enquêteur bi. Mhm. def na ko nga xamante ni dafa yabal ay éléments am ñu ànd ak ki nga xamante ne nii ci kooku la ñu war a def test yi. Mhm. mais boobu rek moo valable amul beneen valable te loolu. je pense que banalité la boo xamante ne ni bépp médecin wala képp koo xamante ni yaa ngi liggéey ci wàll woowu xam nga ko. donc ñoom ils ont la charrue avant les bœufs. mais bu boo boo déggee ñu ne la. plainte bi bind nañu ko ay 15 jours avant ñu ne euh, euh, avant le 2 février avant le 3 février bi ñu ne ci la am amee lu xew ça pose problème. Mhm. Mhm. Mhm. ça pose problème euh, yeneen mbir yi nga xamante ne aussi gis nañ ko Ramatoulaye mooy que ñoom ci réquisitoire boobu ñu ngi wane que ni Adji Sarr nee na ci benn jamono dafa ni beneen masseuse bi na génn mu wéet ak Ousmane Sonko. loolu da teeyul xel koo xamante ni yàgg nañ lay violer waa ji lay violer ñëw nga di ko dangay ngay wéet ak moom ci benn bërëb. bon euh, wax na ko ci biir euh, gis nañ ko audition yi nga xamante ni léegi c'est sur la place publique nga xamante ni aji wax na ko nee na benn moment wax na ki nga xamante ni mooy maman c'est son surnom je pense bien mu pour mu génn xajal leen c'est vrai que di nga ne ana lan moom motivé pour que mu wax euh, kooku nga xamante ni moo ko doon secondé pour mu génn li mu ci wax moom. confier ko li ma liir mooy que waaw parce que euh, comme Ousmane sonk da ko menacé woon ak yooyu looloo tax moom aussi mu daal di demander à ce que cette mu génn xajal leen c'est vrai que dina teyal xel aussi parce que yow bu fekkee euh, kii nga xamante da nga ko accuser nga ko viol nga bëgg euh, ñëw waat ak moom ci ci circonstances yooyu après ay menaces nga xamante ni proféré euh, proféré na ay menaces contre yow. Mhm. mu am keneen ku nekk ci sa wet aussi secondé la je pense que euh, bu fekkoon en temps normal la euh, yow nee nga koy menacé na la mais. di nga bàyyi kooku mu continuer nekk ak yow parce que tu vas te dire peut-être que pour éviter mu mm-hmm. encore répété li nga xamante def na ko ak yow donc foofu ça ça donne un peu à parce que euh, on peut pas comprendre nit ki nga xamante ni moom mooy ñëw ci biir fekk la foofu pour violer la mu ñëwaat ki lay assister nga ni ko génnal xajal ma il y a beaucoup de questions à se poser. Mmh. des questions à se poser Mame Birame. te ma dolli la si loolu. capitaine Touré bu mu di def ñoom ñaar confrontation Euh, Adji saar ak soxna soosu waaw nee na à un moment dafa génn ci bureau bi bàyyi leen fa mhm. xam nga loolu gars yi dañ koy def pour xool tester leen mhm. nee na Adji Sarr mu ngi wax ak l'autre fii di ko proposer sax xaalis pour mu ànd ak moom ci version bi muy tenir mhm. femme boobu noonu mu dàqoon bind nañ ko ci PV bi noir sur blanc Mhm. ba tey euh, ñu wéy ak yow Mame Birame euh, est-ce que tey jotul quand même parce que ñi nga wax waxu procès boo xamante ni euh, de tous les dangers bu amee peut-être Sénégal dina nekk ci voilà en tout dañ dem ci incertitude ñu bari ñu ngi naan dina am coow ak du am coow et chaque jour ñuy jot ay éléments yoo xamante ne dafay wan ni que procès bi wax dëgg yàlla bu ñu ko tegoon ci yoon rek peut-être waroon nañ ko dépasser bu yàgg waroon nañ def non ya waaw non moom kay xam nga dañ dañ koo forcer moom loolu la ñuy répéter depuis boobu ba léegi man waxuma la sax ci bureau juge d'instruction mais dama jàpp ne dossier bi waruloon a génn section de recherche ba euh, Adji Sarr ñëwee enquête ñu posé déposé plainte ñu posé ko ay question mu wax lu mu wax ñu woo témoins yi ñoom ñu wax ñu def woo certificat médical bi euh, convoqué certificat médical bi mu wax lu mu wax dañ ko waroon a def comme ni ñu def le dossier Californie ak soxna Adji Thiaré Diaw boobu xawma Thiaw exactement noonu lañ ko waroon a def wa voilà bu nekkee dañuy toppee Ousmane Sonko nee nañ menace de mort loolu c' est un autre dossier mais affaire de viol bi dès l' instant que témoins yi wax nañu certificat médical bi wax rek waxu viol dañ ko war a jëloon tege jël ko tegee ko fële loolu mooy justice maanaam ci fee yi la ñuy sukkandiku léegi xam nga loolu déjà maa ngi lay wax section de recherche la ci diggante bi Pape Matar lan ak lan ak lan moo fi génnaat comme élément yuy prouver li Ousmane Sonko waxoon au départ que complot la. depuis section de recherche ba section de recherche déjà nee la foofu li fa li fa dajalee comme élément seetaloon na Sonko. léegi si diggante bi lan ak lan lan moo fi génnaat déglu nañ fi audio Mamour Diallo Adji Sarr. Mhm. loolu mois d' avril la woon. Mhm. mois d' avril Mamour Diallo. ci audio bu ñu dégg muy wax aji Sarr que procès bi bu jàllee li ñu diggante woon dina ko dina ko def. dina ko respecté. dina ko respecté mhm. boobu est-ce que boobu xam nga ne gu ñu sax doyen des juges bu war a remplacer euh, euh, Samba Sall. Mhm. kooku di wax loolu mu ne bu procès bi passé lu ñu diggante woon dinañ dinañ ko def. Mhm. loolu mu passé Pape Matar ñu ne la suite boote kër ga. kër ga fi nga xamante ni foofu la suite boote nekkoon te normalement bu nekkee enquête war na am. ñu xalaat ne reconstitution des faits war nañ ko mën a envisager maanaam delluwaat foofu xool ci néeg bi ñu newoon foofu lañ doon maase ak fi ñu ne fii la jëkkëru euh, Ndeye di Ndiaye bi nekkoon parce que nee nañu yaa même pas deux mètres ci diggante bi mais loolu yëpp dañoo waroon dem vérifier xool ndax c'est vrai ou pas. Mm-hmm. mais lan nga dégg procès bi dafa euh, nu mu tuddati dossier bi dafa quitté section de recherche dem ci euh, parquet ñu ne la. kër ga dajj nañ ko ba commencé nañ koo tabaxaat. muy deuxième fait. ñu jékki-jékki ki nga xamante ni Adji Sarr nee na mooy sëriñam am également lu mu wax génne ay audio yoo xamante ni Adji Sarr si boppam moom mooy expliquer loolu man nee na ñi gëmoon Adji Sarr au début euh, jàpp ne li ñu koy tuumaal li muy tuumaal Ousmane Sonko dëgg la. Mm-hmm. ñooñu ñoo amoon pour am lu ñu leerlu ci ojo euh, yi nga xamante Adji Sarr ak MC Niass seq nañu ko. Mhm. parce que ñoom dégg nañu Adji Sarr di wax ne man nag moom sequñu dara ñoom ñoo ma euh, wax ne naa ko indil xaw ma lii xaw ma laa xaw ma lee wax ay waxam. Mhm. génn ñu laaj kon euh, doyen de juge woo ko ne ko yow audio yii ma MC Niass transmettre est-ce que yow yaay wax walla nekkul yow yaay wax mu expliquer carrément ne moom mooy wax mais foofu nekkuloon une deuxième occasion pour fermer le dossier. Mhm. ah boobu mhm. nekkuloon une deuxième occasion pour fermer le dossier d'autant que ci diggante bi Adji Sarr nee nañu Ousmane Sonko daf ko envoyé woon message ne ko maa ngi ñëw ba mu demee gendarmerie mu ne message bi moo ko effacé mu ne woon Ousmane Sonko moo ko euh, mu ne dafa vierge avant Ousmane Sonko di seq ak moom dara certificat médical bi ne déchirure de l'hymen ancienne mhm. ñu ne Euh, mu ne dafa ëmb ba mu koy wax ak léegi léegi mu jege euh, deux ans. Mhm. kenn gisul fu mu wasi ne. Mhm. mais élément yooyu yëpp Pape Matar soo ko jëlee nga tegee ko nële. ba pare ki nga xamante ne nii moom moo def certificat médical bi di docteur Gaye mhm. moom ci boppam taxaw ne dañ koy menacer ay mort dañ koy menacer de mort après lui avoir proposé des dizaines de millions. moom mi moom mi saytu Adji Sarr mu ne dañ ko proposé xaalis bu dul jeex pour mu wax. ne viol am na. loolu defu ko ñu koy menacé de mort mais Pape Matar loolu yëpp boo ko dajalee nga ne da ngay dem projet mais bugguloo jàmm. Mhm. parce que ka nga xamante ni moom ngay woo procès yow la nga koy woo du procès abattoir nga koy woo. Mhm. Mm-hmm. Ramatoulaye ak mm-hmm. euh, éléments yi nga xamante ni Mame Birame wax na ko te yëpp boo xoolee mu nekk lu factuel est-ce que tamit jotul état du Sénégal reculer euh, pour ñu mën a sàmm li nga xamante ne mooy suñu jàmm bii ñu am. waaw Pape Matar je pense que xam nga euh, guerre affaire man guerre des audios laa xam nu ñu ko mën a waxee parce que à chaque fois da ngay dégg audio génn na fii diw wax na ci diw wax na ci diw wax na ci.